ubbil yéene kay bi waxante nañu fa yu baax dekkal nañu fa yaakaar tëgg nañu fa pacte d'engagement éthique politique engagement yi candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba jël l'observateur ne nañu toll nañu ci juróom-ñaar ñaar ñi doon xëccoo candidature ak Abdoulaye Daouda Diallo yéene bi mi ngi ñuy wax ne joxalante nañu ca ndajam dimb ma ay kàddu yu daw yaram fa ñu ko waxante di ca ndajam conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar bi Vox Populi moom la xëyee ci xëtamu njëkk ba di ñu détaillé la fa xew mbir xew na ci biir Benno Bokk Yaakaar am nay responsable yu mag yu bokk ci parti socialiste yu ci àndul Mame Bounama Sall bokk ci parti socialiste yéenekaay bi nee nañu bokk na ci ñi ci jommi jomet Alioune Ndoye moom li mu bëgg Les Échos nee nañu mooy parti socialiste convoqué secrétariat exécutif national ba parti bi nu mu gën a gaawe ngir ñu waxtaan ci candidat yi bëgg bokk ci wotey présidentielle yi di ñëw suur soi nee nañu seenub lim ëpp na téeméeri candidat ñaar fukk plus de 170 a candidat yi ñu bari ci ñoom xëy nañu ak moo yéen a kaay ñu xëyandool El Hadji Ibrahima Sall dépp candidat moo nekk ci bés bi le jour Aliou Mamadou Dia mi waa PUR tànn def ko seenub candidat mi ngi ci laa sinekaay El Hadji Malick Gakou bu coalition Gakou mi ngi ci xët mu njëkk journal la mandat moom ak programme bi mu tëgg tuddee ko r réconcilier réparer restaurer kii sàkku ñu restaurer ko ci droit am delloo ko ay àqam ak yelleefam di Ousmane Le Quotidien journal bi dañu wax ne ngir lijjanti ko fa ab awakaam di maître Bamba Cissé déposé na référé ngir ñu dellu gannaaw ci décision bu nu mel sursoi nañu ñoom avocat yu Sonko yi démb ca la ñuy jot këyit di notification bi leen di wanne seen waa ji di Sonko seppi nañu ko ci liste électorale yi ñoom avocat yi ñu gàddu këyit wa dem saisir tribunal bu Ziguinchor lu tax tribunal bu Ziguinchor ne nañu moo di ndax Ousmane Sonko mi ñu ray ci liste électorale yi jooyandi yu mujj yuñ ciy séntu di les derniers réglages su du côté nee nañu coow li mi ngi ci li ñu naan doublon externe ensemble pour Mbàkke point actu nee nañu kuréel la dib mouvement bu yees bu ñu samp ca bawal ñu ràññee ci ay kilifa yu ci mel ne Sëriñ Galas Mbàkke Amina moom Alaaji Baara Mbàkke Falilu Xaadim Bamba Sarr Abdoulahad Lo Alioune Diouf di opérateur économique Sëriñ Saliou Mbay Biram Fall ak ñeneen seen yitteeg seen yéene nee nañu mooy développé Mbàkke yéenekaay bi nañu te nag ñoo nga ca ndax dugal gum nañu ca dëkk ba ñetti téeméeri million ci ay matériel médical ñaari watay benn tasseuse place ngir askan wa yeewoo ca Mbàkke ñu romb Mbàkke jàllu Tuuba wax ci ndigal li bàyyee ko ci xalif général di murit sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru yëral xët mu njëkk enquête dina bi képp kuy sampati daara ca dëkk ba baa nga fay tabax jumaa wala jàkka nga defee ko ni ko borom dëkk ba sëriñ Tuuba Cheikh Ahmat Bamba Xaadim Rasuul santaane ndigal loolee Nicolas yéen kay tudde mooy fatwa bu sëriñ Muntaxa kàddu yi ci sëriñ bi yëkkati vox populi xëy nañu ko jottali mu njëkk ci xët mu njëkk l'observateur xew-xewu jamono beneen bu yéebeeti fukki jeunes ak juróom-ñaar yéen kay bi ne nañu ñoom lañu jàpp ci cité mixta